ci wàccaayug màggalug sëriñ Modou Rokhaya Mbacké bu Daaru Salaam di bés bi nga xam ne ci lañuy dajale àddiya ji nga xam ne mooy bàyyi ko Daaru Salaam ngir dem ci ki fi nekkal sëriñ Touba Serigne Cheikh Anta Mbacké inauguré na bâtiment bu yànj bi nga xam ne moom la liggéey fii ci Daaru Salaam ci kër Serigne Modou Rokhaya gi tuddee ko résidence Serigne Modou Rokhaya mu nekkoon inauguration boo xam ne taalibe yu bëree bëri teewe woon nañ ko ki nga xam ne moo di xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yebal fii délégation muy Serigne Ahmadou Badawi Mbacké moom Cheikh Modou Fadal ak Serigne Mame Thierno Mbacké moom Cheikh Modou Mountakha Mbacké Bachir ak Serigne Cheikhouna Sylla ñu ñëw teewal ko fi sëriñ Moustapha Lakram mi nga xam ne kenn la ci sëriñ Cheikh Anta moom it teewe woon na jotaay bi mboolem kilifa yi fi teewoon sant nañ bu baax a baax sëriñ Cheikh Anta ci taxawaayam ak jëfam ju rafet jëmee ci yoonu murit rawatina bâtiment bu yànj bi nga xam ne moom la liggéeyal waajuram wa. sëñ Cheikh noo ngi lay sant njabootu sëriñ Touba gi gërëm nañ la ndax sa jëf foo xool ci Touba gis li nga jëfal sëñ Touba feeñ na ci wet gu ne tey sa kër yëpp buñ ko boole woon ko dàq nga defal ko sëñ Modou Rokhaya waaye nag laa xar wa ndax ki tax nga toog lu waay am nu nga la koo jox lu mu jàpp bàyyi bàyyi loola ngir yow kooku lu ko waay defal yaayoo na waaye lii ab jàngale la ten ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi tan ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te ku jàpp ne rek euh, du sëñ Mountakha moo toog fii tey te ku jàpp ne jataay bii du jataayu sëñ Mountakha moo fi toog eh, xamoo lu bari xamoo lu bari kon Cheikh Ahmad Badawi kon ñu ngi la jàppee Serigne Touba ci jataay bi. kon Cheikh Ahmad Badawi ñi ngi lay jàppee Serigne Touba ci jataay bi. ndax ndaw lu ne. ndax ndaw lu ne. darajal ka ko yónni la yor. yi ka ko yónni rek la yor. kon bu sëñ bi ñëwoon léegi. kon bu sëñ bi ñëwoon léegi. Ah, daanaka bu ñu mënee raam ca pënd ba sax ca la ñuy raam. daanaka bu ñu mënee raam ca pënd ba sax ca la ñuy raam. kon nu mu demee. kon nu mu demee. bu ñu toogee ak yow it. bu ñu toogee yow it. jàppal ne darajey sëñ Muntaxa bàyyi nañu ko xel. jàppal na daal jàpp bàyyi nañu xel lool darajey sëñ Muntaxa ji nga yore. te moo la yónni it nag. te moo la yónni it nag. Eh, te te lu mu waxoon ci yow nga wax nu ko. tey lu mu waxoon ci yow it nga wax nu ko. lu mu mën a doon. lu mu mën a doon. bu ko defut. bu ko defut. ku ko defut ku ko defut. génn nga génn nga moom. ku ko def ku ko def. yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir dëgg la. kon nag maa ngi lay jox daraja jooju. kon nee na mi ngi lay jox daraja jooju. Eh, di wan rek ki ngeen ñëw moom xas naa ko tudd muy sëñ Cheikh ma Male. nee nag di leen wax ne kii ngeen ñëw moom xas naa ko tudd ba nopp muy sëriñ Cheikh Anta. Male Male. ndax bu fi sëriñ bi daan ñëw. ndax bu fi sëriñ bi daan ñëw. fu ma man a ne. fu ma mën a ne. dana ma woo. dana ma woo. ma ànd ak moom. ma ànd ak moom. ñëw fii ci moom. ñëw fii ci moom. ànd ak moom. ànd ak moom. dem ci ki fi toogal maam Cheikh dem fa ci ki ci toogal maam Cheikh Anta. ci jamono yëpp nag. ci jamono yëpp nag yi weesu yëpp. nga xam ne booba sëriñ Touba mooy yónni Cheikh Mamadou Mountakha. nga xam ne booba sëñ Touba ma fa nekkoon moo daan yónni sëriñ Mountakha. muy ñëw muy ñëw. ba mu doon sëñ Touba. ba mu xëy nag doon sëñ tubaa mi daan yónnee moom muy yónnee. te booba ci waajtaay la ne. te booba ci waajtaay la ne. kon nag kon nag. moom moom mi nga xam ne amoon na cër boobule. moom sëriñ Cheikh Anta mi nga xam ne amoon na cër boobule. damay defe ne cër bi damay defe ne cër bi moom moom la moom la ñuy doxalaat ba nëgëni. moom la ñuy doxal rek ba nëgëni. cig fàttali Darou Salaam war a amal màggalug Serigne Modou Rokhaya di samedi bi dëppoog le 9 janvier 2021 di bis bi nga xam ne ci la ñuy dajalewaale addiya ji nga xam ne at mu jot moom la yóbbul ki fi nekk xalifu général des Mourides.